su may wax pôle ndakaaru nag daf may permettre ma dem démarrer ko ci li nga xam ne moom la ñu ubbee la vision deux mille cinquante mooy un développement territorial déséquilibré développement territorial déséquilibré mooy réew il faut ñu xam ni ñi ne ci réew mi yépp ñoo tolloo ci réew mi ils ont les mêmes droits les mêmes obligations kon état bi leen ëmb ñoom ñépp war naa fexe ba kenn ku nekk jot wàllam ci réew mi sans distinction de région ki nekk fële Saraya wala salemata ki nekk Kanel wala Kédougou ki nekk Bignona wala Vélingara dafa am les mêmes droits ki nekk fii Ndakaaru Njaay fi nekk egguñu foofu rek dañ naan le développement territorial est déséquilibré tey ba ñuy def la vision 2050 bi ñu xayma li ñu gis mooy ndakaaru nga xam ne moo représenté moins de 0,05 pour cent du territoire national moom moo concentré 46 pour cent de la richesse nationale Dakar moom mi représenté moins de 0,05 pour cent du territoire national moo concentré 46 pour cent de la richesse nationale boo jëlee li nga xam ne moo nekk ci centre pays bi te mu regroupé 11 régions depuis Saint-Louis Louga Diourbel Kaolack Kaffrine Fatick et cetera ñoom ngay jël ci kaw depuis le nord jusqu'en bas ci sud ba Ziguinchor Sédhiou ak Kolda onze régions yi ñoom ñëpp boo leen dajalee il représente elle représente quarante quatre virgule cinq pour cent de la richesse nationale te onze régions yooyu représenté nañu minimum minimum quatre vingt pour cent du territoire national nga jël nag l'est du pays nga xam ne ñaari région la Kédougou ak Tambacounda ñoom ñu représenté neuf virgule cinq pour cent de la richesse nationale. séquence boo xam ne mooy li ñuy dund. am na wéykat bu njëkk a dugg. dafa ne kan moo fi booy Dakar kan moo fi kaw kaw. distinction boobu bu koy def. da koo def rek pour xumbal. mais ñun xamuñu booy town. xamuñu kaw kaw. lenn lu ñu xam mooy sénégalais. sénégalais la ñu xam. moo tax ma profito lever aussi benn équivoque parce que benn comportement wu benn nit ñun waruñu tombe ci erreur stigmatiser tout un quartier wala toute une commune ndax Baobab boo fa demee ci élection présidentielle bi ñoo fa gagné kon Baobab ñoo fa ëppale keneen ku dul ñun le problème c'est pas Baobab c'est pas Dakar le problème c'est un individu bu am ay problème am boo xam ne à la base de jóge ndax kenn ku ne nañ la yare sa kër boo génnee ci biti noonu ngay comporté woo kon du problème bu Baobab du problème mu ndakaaru ndakaaru bii élection bi passé ñoo fi gagné largement te élection bi ñu jëm sa sera plus profond encore incha allah kon kuy woote borom ndakaaru te munoo gagné dara ci ndakaaru mooy mag buy nax boppam et bu ñu tombe mukk dans ce piège mais déséquilibre boobu am entre les différentes zones du Sénégal moo tax lu bëri ci ñun ñii à commencer par man on s'est retrouvé à Dakar alors que bu ñu amoon le minimum fa ñu dëkk peut-être ñu bëri ñu nekk fii diggante Guédiawaye Pikine Kër Massar Rufisque Dakar ils ne seraient pas là ils seraient chez moo tax ñu ne il faut rectifier et corriger ce déséquilibre territorial dans la vision 2050 gannaaw bu ñu développer li ñu bëgg a développer ba pare l'équilibre sera 46 pour cent yi ñu am Dakar dañ koy wàññi ba mu ñëw 29 pour cent boo ñëwee pôle centre boobu ma tuddoon nga xam ne 44 pour cent la war nañ ko yóbbu ba 51 pour cent waaye boo demee ci pôle est bi moom moo war a ñëw à vingt pour cent lii boo ko defee suñu nee nag dañuy wàññi dakaar dañu bëgg nit ñi comprendre koom-koomu Sénégal de manière générale day yokku de manière substantielle dañ koy yokk mais ñu redistribuer ko ba euh, yeneen pôles yi yeneen régions yi jot ci seen wàll loolu mooy permettre ñenn ñi nga xam ne tey ñi ngi ci dakaar et dans des conditions difficiles juróomi nit loué benn chambre xëy nekk ci mbedd mi di jaayant pour am lu ñu yóbbu ñooñu su dee yaa ngi jóge woon Kaffrine wala Ziguinchor wala nga jóge kawlax wala nga jóge fu mu munti doon bu dee def nañ li ñu war a def foofu ci pôle bi te pôle yooyu yëpp bi ma fa jaaree expliqué naa lañ fa war a def à partir du potentiel qu'il y a dans ce repartir fa ñu dëkk am fa seen sutura loolu mooy permettre Dakar noyyi Dakar aéré balaa nga naan maa ngi sonal sa mbopp di def de nouveaux pôles urbains da à l'intérieur de Cap-Vert nga créer les conditions non seulement de l'exode rural mais que les populations repartent vers leur ruralité mën a am li ñuy am ci mbay mi am ko ci càmm gi am ko ci industrie yi ñuy tabax foofu am ko ci mine yi ñuy développé foofu loolu mooy suñu vision économique mais le pôle de Dakar boo ko jëlee moom li tax ñu def ko pôle moom dong en terme de superficie soo ko nattee ak yeneen pôle yi da nga naan li tax pole Dakar nekk pôle mais yàlla dafa def bi tubaab bi jëlee capital andi ko Dakar ñu am une économie boo xam ne dañ ko centraliser à Dakar mu créer benn macrocéphalie lépp nekk biir Dakaru loolu tax ñu ko pôle ñu ne pôle boobu nag lan lañ ci fas yéene def lan mooy configuration pôle bi ci jamono ji le pôle de Dakar en terme de population fait quatre millions cent mille habitants à l'horizon deux mille cinquante war naa nekk six millions cent mille habitants donc une progression substantielle le pôle de Dakar boo jëlee le PIB par habitant moom moo ëppale actuellement ci Sénégal yëpp parce que c'est un million huit cent mille francs par habitant looloo tax nag ñëpp jóge ci biti parce que yeneen pôles yi ay quatre cent mille francs nga fay fekk ñi ci gën a bëri la six cent mille francs y'a que est muy Kédougou ak Tamba moo egg un million rond mais un million boobu mooy un million sur le papier parce que or bi fa am ba tax ñu egg foofu xam ngeen ne or bi Sénégal gisu ci dara kon théoriquement c'est un million mais population Tambacounda population Kédougou boo leen doon seet ñoo gën a ndóol ci Sénégal ndax gisuñu xaalis bi nga xam ne moo jóge ci or bi moo jóge ci yeneen yi ñuy exploité foofu marbre bi mi ngi foofu ñu koy exploité ak yeneen ñu ne à l'horizon deux mille cinquante pôle bi dafa war a atteindre dix millions par habitant en termes de PIB rapporté à l'habitant ñu ne lan mooy taux d'emploi bi ñi fi nekk en âge de travail war liggéey pôle bi mi ngi actuellement à vingt pour cent c'est le taux le plus élevé au Sénégal mais à l'horizon c'est encore très faible moo tax ñu ne à l'horizon deux cinquante on veut l'amener à quarante pour cent mais loolu naka lañ koy defee lan mooy les grands projets deux mille cinquante du pôle ma commencé ko par li nga xam ne mooy la culture ndax ñu bëri dañuy laaj lan mooy place culture ci projet bi Senghor moo doon wax la culture et au début et la fin du développement wax na dëgg culture dafa am solo en dehors des aspects identitaires foo dem la ñuy ràññee les peuples entre